bu ñu ko euh, mënee tënk dafa fekk ci euh, gis-gisu njiitu réew mi euh, son excellence le président Macky Sall mi jël décision ne dafay taxawal kuréel bi ñuy woowee ASES e muy agence sénégalaise d'étude spatiale mu yor lépp lu jëm ci spatial bi. loolu nag moo waral tey ñu ànd ak partenaire bi di Prométhée nga xam ne tey lépp lu jëm ci li ñu tuddee new space fële ci France wala ci Europe bokk nañ ci ñi ci jiitu ñoom ñoo taxaw pour jàppale Sénégal pour que ci new space boobu maanaam. jamono yi ñu nekk liy doxal spatial bi ñoom bokk nañ ci ñi ci jiitu ñu seet nag nan la ñu mën a jàppale Sénégal pour que agence bi ñu taxawal ak suñu réew ñu mën a bokk tam ci réew yi jiitu ci wàllu spatial bi fii ci Afrique li ñu xaatim tey day nekk mm, benn mbootaayu satellite boo xam ne mën na nekk juróom ba juróom-ñett yoo xam ne ñooy àndandoo di liggéey ci asamaan si di ñu jox information yu gën a gaaw yi ñuy soxla pour mën a jël yenn décision yi mën na nekk ci wàllu mbay mi ci wàllu santé ci wàllu éducation wàllu sécurité wàllu environnement donc loolu la ASES taxaw fi mu nekk nii ak partenaire bi Prométhée ñu xaatim ko ñaan yàlla mu def ci sutura fii léegi 2028 Sénégal mën a am groupe satellite boobu ñu tuddee ko Constellation ci ni mu gënee ci réew mi